sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu bàyyi la nga présenté wu. Moussa Diaw waaw maa ngi dëkk fii allée boulevard général de Gaulle centenaire quoi donc du loger Colobane en même temps. macha allah tey nga ñëw euh, daal di wuy si woote bi ñu gis nga téye nag euh, benn euh, carton boo xamante ni message bi nga ci lancé dafa fort dafa fort ba mu marqué sax ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko njiital parti politique bu Pastef. Ousmane Sonko seetlu lii bokk benn affaire. ba pare wóolu lan dafa bëgg gis carton. donc en fait c'est-à-dire am benn réponse moo bëggoon apporter rek. parce que mu seetaan temps yii la Walf Fadjri euh, maam Birame Waaj mu ni Macky Sall nit ñi muy am actuellement Sénégal ñoom lay transporte di fu muy dem yóbbu leen ma toog sànq rek dama jóge jumaa rek affaire bi ne tëj sama bopp ma ni bon xaaral tàmm naa su may dem manifestation yóbbu pancarte ma ne tey xaaral ma yóbbu bii kenn euh, importé wu ma kenn fayu ma man maa ñëwal sama bopp donc defe naa ni ñi fi ñëw yëpp noonu la demee. le waaw ñoom noonu ñoom ñoo ñëwal seen bopp daal. donc fekkee nag da ngay lu nga xam ni sa sa doole mbooloo mu xam sa doole moo ko may ak mbooloo ko na nga ni ñëw la ñu wuy leen defe naa ni foofu différence bi c'est amul amul kii quoi. lii la yëkkati yëkkati ndaw yu bëri ñu ñëw ak mag sax yu bëri mbooloo mi fi teew yëpp tey bi nga egsee ban yëg-yëg nga am. xam man nag comme man maa ngi dëkk si parage yi tàmm naa ko manifestation bu ne mun naa la wax bu réussir ak bu réussirul mais manifestation yi mujjee yi di ci yéeme mooy. parce que ñun quartier bi bu manifestation amaan Njaga Njaay yeeg kaar yi dañ daan ñëw ba suñu biir quartier bi par camp mazout mais léegi manifestation yi loolu lu amatul au contraire seen nit ñi seen oto yi ñooy ñëw gaare ak scooter yi suñu buntu kër yi génn ñëw manifester bu ñu paree nettoyer place bi daal di dem parce que fii dans quelques mun minutes sax mun neen léegi nga gis commencé nit ñi def sport comme sama genre gi léegi ñu ñibbi suñu kër simmeeku solu parce que niñ ko fekk fekkoon bu manifestation bi jeexee noonu lañ ko bàyyee. Euh, gis nga ni nga ko waxee rek place bi lu ne xew na fi euh, gars yi wàcc nañ fi xeex lu nekk wàcc nañ fi casse droit bu nekk ndaw yi nga xamante ni teg nañ leen loxo mën nañ ne boo léegi am na ñetti weer euh, tey mu waral daje bi pour ñu xeex seen àq ak seen yeleef pour ñu libérer leen dégg nañ ñett si ñoom dem nañu mu des encore juróom si ñoom. xam nga xam nga lan mooy différence bi parce que comme ay ñoo lank aar lu ñu bokk daan nañu manifester ay paar nga fi gis ay ñoom. père ba ay ñoom ay maire mais bu ñu demee nag bay gis manifestation yi ay xale régime bi nag de attends affaire bi données yi changé nañu parce que xale ak mag bokkul mag day réfléchir te xale dafay ñëw ak fugam donc man régime bi su ma amoon euh, conseil bi ma leen di jox rek mooy ñi nga xam dañ leen téye ñeen bàyyi ñibbi seen kër ñu lijjanti leneen parce que xale yi ma gis nii téye leen dafa nam benn instant xam ne téye du yomb parce que gis nañ ko mars parce que marche ñun dañ ko dund ñun ñu dëkk Centenaire dëkk Colobane ñun ñoo dund affaire bi. moment yooyu noonu lañ ko dundee yéen ñi nga xamante a dëkk malheureusement. ci ñun ñun on a reçu on a reçu des douilles on a reçu des lacrymogènes suñu yi toog nañu ay 3 jours koo ci waxal baat bi bu deewul bëti xonq na parce que ñun yàgg di xam ne ñun ñoo nekk euh, à li ñu gis ak xale yi musuñu ko gis vraiment nag bu fekkee dafa am benn régime boo xam ne régime bi c'est ah, régime bu averti la danañu toogaat xoolaat ne dootul nekkati xale yi nga xam dama leen di jaay doole. da ngay négocier surtout lu nga xam ne tegu tegu du dëgg teguwul si yoon loolu da koy jënd ka teg ko fële ñu seet leneen affaire yi gis nga affaire nguur affaire àdduna la Senghor fii nekkoon dem na Diouf ñëw dem Ablaye Wade ñëw dem Macky Sall il faut mu def si boppam que tôt u tard lu fi jógee il ne pas éternel donc yenn yi da bàyyi way bu way bu rafet way way bu rafet parce que bàyyi nga fa ay doom l'histoire l'histoire retiendra que si nguuru diw te defe naa ne instant bi ñu toll sax defe naa ne gouvernement bi war nañu am yeneen yeneen préoccupation que que di lijjanti nii lépp a yokk li li ma gën a jaaxal mooy potu thon potu thon nga xam ni moo gënoon banal potu thon potu thon amatul potu thon amatul te ñun am géej cas Cap Skirring ba ba ba ba ba ba du fleuve nga am ko géej amatoo thon ah lépp yokk diwlin. tout tout lépp a yokk donc préoccupation yi mel noonu boo ko amee def naa war nga tal leneen ka yéen yéen i pour man yéen di ay détails la quoi war nañ ko faxas teg ko fële. merci beaucoup merci beaucoup. maa ngi koy euh, maa ngi jóge Thiès man la fay Faye jóge Thiès ñëw pour euh, soutenir suñu frères yi nga xamante ne dañ leen téye illégalement loolu moom fi andi pour soutenir leen waaw. ñu bàyyi jeunesse bi ñu bàyyi leen nous sommes libres. nous sommes libres am nañu droit manifester résister lu ñu naqari ñu waxoo bu ñu ne démocratie nañu bàyyi nit ñi wax nañu bàyyi nit ñi exprimer wu mais lan la on n'est pas des esclaves quand même jeex na man daal loolu rek laay wax. lii moo koy saafara na Sénégalais yëpp génn Sénégalais yi génn leen ñu taxaw faire face parce que Macky Sall daan na xeex lii tey nag bu ñuy bëgg a def lii dañ koy wan ne ñun ñoo ko fi tegoon léegi nag xoolal ñoo ko fiy dindiwaat yooyu laay bañ a wax na xam nga qui ne dit qui ne dit rien consent qui ne dit rien fa mu tegoon tànkam ba léegi teggiwu ko fa dafa doon woote au secours parce que xamoon na ne jeunesse bi ñu koy ëpp doole léegi bi ñu xamee ne léegi kilifa diine yi ñaan nañu njëkk ba nga xamante ne léegi fi mu nekk nii ñëpp teg nañ ci suuf moom muy continuer li muy def maanaam moom li muy bëgg a def ba ba léegi mi koy def mais nag si temps nag ñu xool essayer de lire entre les mooy lan mooy que tekk kaaram bii xam nañ li mu bëgg mais la mu bëgg xoola dañ ko cay defaat ñun ay mère lañu on est là pour nos enfants parce que on va se battre pour nos enfants loolu la am merci beaucoup. waaw li ma fi indi rek mooy comme li fi indi ñëpp mooy bëgg a dindi mbuumu njaam gi nga xam ne dañ ko bëgg a teg ci askan bi te duñ ko nangu mooy prisonniers yi nga xam ne ñu ngi leen tëj tëj leen ci kaso yi te defuñ dara waxuñ dara lu dul bëggoon a am liberté. moo tax ñu koy def loolu moo tax ñëpp daje fi tey pour que injustice boobu ñu dindi ko ci Sénégal looloo tax ñu daje fi looloo moom motivé motivé samay moroom moo tax ñu tefe pour dindi injustice bi nga xam ne mu ngi am ci Sénégal duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg voilà merci.